question de jaar jàll jom ak fit mooy matal góor yàlla mission bi dóor waar la question de jaar jàll jom ak fit mooy tax doon di jàll mission bi dóor waar la question de jaar jàll jom ak fit mooy matal góor yàlla mission bi dóor waar la question de jaar jàll jom ak fit mooy tax doon di jàll jóg fajaru teel takku fajaru teel jóg sama xel faat ngërëm laay defaat fu ma toll di xel suba laay fexeel sama jeunesse wër naa macha allah bés lay xëy ni mes yëpp misaal la amee góor yaay war a fay baay mun ma leen dab gaa mais jar na def ci amul benn ragal dinaa leen dëggal ak alal bu lew sama cofeel di law bëgg naa fond de famille bu ma tul ameel àq comme ñaan naa mu ami comme war a nàq seet ci xel yaram moytu sa taaf yaram li mu yore di doore bismillahi lay doore fenkal suma jant fu ma toll di sant mooy fenkal suma jant fu ma toll di sant la ñoot di raw kenn du ma joot du ma giiroo bay foot gaamee dinaa root xol bi tam naa ko fóot bay mun di muñ lu root mun gudd mbaa gaat jublu rek maay gaat see wala maa geet ñu ngi nii maay geet yow tam lool laa la gëm loo taman moomee jaam loo gis nga boo sabat loo dara coomul la fiiroo ñu jur bi di la natoo defandul rek doo bés bu la gestoo nga neex a tiitoo liggéeyu yaay du alal seetaan mun na la bàddil mais buur bi su lay abal bëgg nga jug kocc day mel ni ku lay kocc day mel ni ku pour ba nga wan ni kocc jóg waar moom waar jaalante amatul maa ngi tudd Koumba maa ngi dëkk Diourbel Sëñ Mbaye Sarr. ma tàmbalee ma xool laa tàmbalee taxawal sama bopp ay bunt ay palanteer yooyu waaye dépp ma doonee lu ndaw ci laa laa ci nekkoon ba tey. lan moo tax bi moom dafa doon sama deret moo tax. sa waaw sama papa waaw moom la doon waaw. waaw. lan moo tax nga jigéen ñëpp taamu yeneen métier yu nooy yi doo na leen nga yëkkati ay jigéen waaw xam nga rek yaa ma xam nga dañ ne métier amul góor amul jigéen moo tax man ma ñëw taamu li nga xam ne moom la sama papa doon ma ni ma ñëw ne ma ni damay doon loolu. est liggéey bi non métti na méttiwut. bi nga sooy soo a dugg daal moom day metti ci yow ndax doo ko mën a comprendre waaye boo xasee ba miin ko nii jeex na dara dootu mett waaye ba soog a dugg moom dina mett di nga arc di nga dagg di nga lu ne lu ne dina la dal waaye boo xasee moom ba miin ko moom jeex na boo maîtriser yëpp rek amul benn problème. est-ce que am na ay ay copines parce que pédicure manicure affaire que ñoom xale yu jigéen ñi nekk ci daanaka daanaka man amuma daanaka amuma xarit yoo xam ne damay fréquenté ak ñoom déedéet man bu ma wàccee sangu naa toog su ma xëyee fajar liggéeyuwaat wutuma xarit wutuma àndandoo wutuma dara sama métier mooy sama xarit mooy sama àndandoo mooy sama lépp ndax ëllëg fu ma jëm dama koy bëgg di yóbbaale ko te ñaan na yàlla ma dem ba am sama entreprise boobu. gis nañ ne euh, xale yu góor yi bëgg xale yu góor yi ngi ce que actuellement kumba am na par exemple ak métier bi mu kumba moom wax dëgg yàlla ah moo ngi nii xam nga ne métier bi tamit ku koy bëgg tamit si koy bëgg ku koy bañ tamit si nga képp ku ñëw tamit di ma bëgg si métier bi dag si ànd ak man bëggale ma ci est bii nii tey bu fekkoon am na loo xam ne da yow ko yaa ngi ciy évolué bu baax a baax est expérience mu ngi màgg à ce leneen loo xamante ni peut-être waaw waaw na loolu de mën ngay créer sa bopp loo xam ne yow daanaka daawoo ko gis da toog di xalaat ne ma xaaral ma jéem a def lii daal di daal jéem a créer dara daal def ko. est man xanaa ay machine machine yi ñuy bàyyee yooyu daal damay jéem a toog di di def ni di créer pour affaire yooyu. mën nga ko di ko bàyyi. waaw ñoo ngi bàyyi ndax am na yu nekk si biir yoo xam ne dañ ko tàmbali nii. te pareegul sàmbale nañ ba pare waaye pareegul moom. ban différence ngay seetlu sa ngay seetlu entre yow mi nga xam ne que di ngay remarqué ne différence am yi moom si si li muy doon mooy li may sol ak moom la muy sol ndax tey soo booy seet moom may gën a sol lu set ndax man li may sol day tilim kon am nañ différence tey bu ñu dajee ci biir mbooloo waaye jàpp naa ni moom xam-xam bi moom. jàpp naan moom foofu moom dañu fa am différence ndax ma li may xam ak moom la muy xam bokkut. nu mu suñu léegi de demoon nga def waa demoon naa Allemagne def fa benn formation 15 jours waaye dem naa fa presse à huile ni koy defaree ak ràkkal bi ni muy awee ak diwlin bi fu muy génnee ak boo xam ne pour solaire la. presse à huile boo xam ne pour solaire bi moom moo koy doxal. kon waaw wax dëgg yàlla moom loolu laa bëgg moom science bi ci laa nekk nii. lan moom li ma si gën a neex mooy yàlla boo solo nag ba pare ba ñëw ba toog ba bañ jox la dara loo xam ne mënoo ko. buñ la ko joxee sa xol tey sedd ndax da nga jéem góor góorlu pour yow loolu ñu la jox noonu mu normal ba yow ki la ko jox day kontaan loolu tamit dama ci gën a neex. non métier moom xanaa ngay xanaa boo métier moom dara naqariw si xanaa boo daggee nii toog nii affaire yooyu moo lay soof ndax toogaay bi da nga ko du tàmm loolu rek moo la si naqari waaye métier bi dara naqariw moom jigéen moom li ma ne ko mooy liggéey amut góor amul jigéen liggéey yëpp benn la loo xam ne yow sàccoo fenoo tamit góor may loo ko tamit loo xam ne lépp loo soxla yaa koy defal sa bopp loolu tamit moom lu baax la. est-ce waaw métier moom maa ngi si am xaalis ndax sax maa ngi ci defal sama yaay di defal sama paap ak samay rak ak sama bopp rek wax dëgg yàlla moom maa ngi sant yàlla bu baax a baax. waaw sa mot de la sama mot de la fin moom mooy ñun jigéen ñu ñu góor góorgóorlu bu baax waaw te bañ a topp góor ñi affaire yooyu. ndax ndax lépp luñ lépp loo xam ne góor war nañu ko defar man nañu ko defal suñu bopp ndax ëllëg ñoom bu ñu demee ba nga xam ne ñoom mooy loolu ñu mën nañu di leen defal te teewu tamit ñoom it dañ ñuy defal